Le Real. Réalité du métier. Les réalités du métier. waaw mbokku internetu Sénégal TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu am mbégte bu baax a baax a baax ñoo tey fi nga xamante ne moom mooy euh, APECSY ñoo tey nag seet si benn ndaanaan bi nga xamante ne nee naa leen yu doy waar lay defar mbokki tey ki ñu seet si tey waxuma yu doy waar mais yi muy defar ku ko gis tey ragal naa di nga <laughs> ne ne jox leen ma numéro téléphone am ma ma ma seeti ko gaaw ba tax balaa ñoo dugg ci waxtaan bi rek dama koy bàyyi mu ñëw internetu Sénégal TV bas su ko defee ñu dugg si waxtaan bas maa ngay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh. ma lay bàyyi dama lay bàyyi rek nga ñëw intern tu Sénégal TV. waaw kon asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp surtout waa Sénégal TV voilà. nuyo bi <laughs> nuyo ah. ya, ya, eh, bi gàtt na ba tey yàqu yàqu si dara. ok waaw bas équipe Sénégal TV tey ñoom ñoo la seet woon. gis yu rafet yi ngay def. tey est ce que mën nga ñu wax kan moo la jàngal métier. ah oui ki ma jàngal métier mu ngi ala Medina mu ngi tudd Omar. voilà. Hmm. Omar Omar la tudd Omar Koulibaly bi Omar Koulibaly tey bu ñuy euh, lan nga ñu mën a wax tey ci Omar boobu lan la def si yow ba ba nga taxawal li nga taxawal waaw ah, ah, Omar li mu def ci man parce que euh, Omar terversé la quoi terversé la man maa bëgg mode bi rek euh, jàng yére jigéen mais man yére jigéen kenn jàngalu ma ko dafa nekk ci man doom parce que sama maam da doon ñaw après sama yaay man foofu laa ko jëlee par exemple noonu laa mën a wax kon daal mën nañu wax ni xaalisu xaalisu téye sama yaay moo nekkoon téer mais bon nekkul téer comme ñi am atelier. Mhm. day def téer pour njabootam wala pour moom ay yërëm quoi mais pas coutumière comme di jël ay ñaw ay ñaw jàmbur quoi. tey euh, lan moo la ci pousse lan moo la poussé ba nga jékki-jékki rek mais euh, nga choisir nga jékki-jékki choisir métier bi nga xamante ne moom mooy couture lan moo la ci dugal. parce que loolu ngi sama yaay di ko defar rek parce que man avant. Ah, menuisier laa doon def. mais après ma ngi sama yaay di defar lu ay fermé loolu moo ma poussé par exemple. daal da nga gis yaay doon defar yi nga xamante ne rek ne xaaral nga sóobu si quoi. voilà loolu la. tey ci duggee léegi ban njariñ nga ci gis. non bari na parce que métier bi nga bëgg am ci amour pour man loolu loolu rek njëriñ la boo ci amul xaalis la loolu la parce que maa ko bëgg. boo xaalis jariñ la parce que yaa yaa yaa aar bëgg aar bi. mais tey est-ce bi nga xamante ni moom nga nekk. est-ce que am na li nga xamante ni juróon noonu loo xamante ne ni kat lii arbe tax ma am ko muy couture bi nga xamante ne moo nga nekk. exemple ci xaalis wala ci xaalis wala loo xamante eh, ne nit mën na si teg bëtam ne lii moo tax nga am ko. bon nit lépp waa waa mën naa ne exemple ñi may ñawal. ñu hmm. génn saa ñu génn ñu ne kan kan moo la habillé loolu mooy bonofice à pour ah, man mais pas pas xaalis quoi parce que nga ñawal nit mu génn eh. hmm. kan moo la solal. diw moom a solal pour man loolu mooy mooy bénéfice aar pas xaalis par exemple ci aar. mais pas xaalis mi ngi naan pas xaalis mais xam naa internet Sénégal TV yi seetaan ñi ngi naan waa ji lu muy wax nii mais bon métier bu ko waxee bu demee ba ba ba ba jur ba nu ko mën a ba moo ko mhm. mais yaa ngi ciy xalaat ëllëg nga ni il faut que ma am ci loo xamante ne dinaa ci am pour mën ci dimbali doomu aadama dimbali sama yaay dimbali sama papa ak ñi nga xamante ni ñoom la ma yàlla boole. c'est-à-dire que artiste dëgg mhm. euh, loolu deuxième la artiste dëgg li ngay xalaat mooy jéem a gën a avancé. jàppale jàppale ñeneen pour art bi gën a yaatu. lu mooy yëfi artiste pour man mais pas yeneen. tey nan nga gisee mode fii tey ci Sénégal parce que ñu bëri ñii ñi ngi naan dox na ñii ñaan ñii ñii naan doxul nan nga gisee mode bi tey fii Sénégal. waaw ñun li ma gisee mode bi pour man euh, ñu yokk góorgóorlu par exemple parce que mode bi léegi comme Sénégal euh, ñëpp ñëppay ñaw. Mm-hmm. ñaw mais pour euh, ñi jàng seen métier nañu gën a góorgóorlu parce que seen métier ñoom ñoo ko ñoom boo ko jàngee rek pour man je suis à l'aise quoi pour rek da ngay sentir yaa ngi li ma mën a wax aussi tamit benn question boo xamante ni toujours day day day ñëw di ñëw tey bu li ngay ñëwal quoi pourquoi parce que <laughs> a jaaxal quoi lu tax nga ñi da ngay ñëw non parce que au Sénégal pour man créateurs yu mag yi léegi en général yére jigéen nga nga gën a mën a créer quoi parce amour création, il y a création yére góor xaftaan la ou bien abasan et tout. peut être man maa ngi un style en lin des wala ay basse def ay mélange voilà mais nous, nous, ñi ko xam bariwul quoi peut être xale yi wala yenn yenn ñi nekk ci ay milliers ñoo koy sol mais ku dee ay yére kilifa xaftaan démissionné moo tax moo tax yooyu yooyu yooyu kii woo ci quoi mais man moom man ak yeneen nga xamante ah. ñi defee clientèle bi gën a mën a varié quoi non si dama jigéen mooy nekk xam ne moom moom laa bëgg di ko def parce que pour man moo ëpp créativité quoi sànq ñi ngi waxtaan euh, ci défilé nga am nga am loo nga am li nga xamante ne wax nga ma ko mu nekk loo xamante ne après maa ngi ree sax euh, ci def ah. bon sànq maa ngi lay laaj na est li ngay participé si défilé bëri nga ne ma non bu dee défilé yi nga xam ne yu xaw a ndaw yu ndaw yi la yooyu xam nga yooyu dafa mais bu mag la loolu nga dund si défilé yu ndaw yooyu nga xam ne ba tax ngeen da nga koy bàyyi parce que pour man def naa sama carrière dama bëgg dama bëgg aar bi nga xam ne man défilé bu njëkk avant amoon défilé xale amul défilé mag parce que man défilé la def quoi mhm. suñu ma invité ma dem mais def naa sama carrière ba nga xam ne léegi am na yeneen défilé yoo xam ne boobu ma ci présenté parce que léegi parce que léegi kii nga quoi yaa ngi ci kaw. <laughs> bon waaw mën naa ne oui parce que sama liggéey xam naa ko aussi samay client xam nañ ko pour man aussi maa ngi ci beneen kii kon mbokku internetu Sénégal TV di leen fàttali rek yéen a ngi seen émission les réalités du métier tey nag ñu ñëw fi nga xamante ne moom mooy APEXI seet si ki nga xamante ne moom mooy Bass euh, mu lancé marque ne moom mooy Weekend Do yaakaar naa xam nañ ko euh, Bass dina boo xamante ni nag bon man parfois damay faral di taquiner téere di leen ko wax yéen téere xam naa ne xale yu jigéen ñi dañ leen a sonal loolu parfois bon ma xaw koo ma xaw a yëngal téere quoi xale yu jigéen ñi topp nañ loolu topp ñu la. bon <laughs> noonu li nga étonné la noonu loolu ma koy bàyyi à chiffre du ma ko tontu. Ah? <laughs> mënut a ñàkk bi booba. ah mënut a ñàkk. non mais yéen dafa am loo leen di di wala ba tax xale jigéen ñi topp la wala ñaw yee tax xale jigéen ñi. leen topp la peut-être ici bi lay doon rek xam nañu kii téer la peut-être euh, bu duggee ci moom dañ mën a sañ wala dara peut-être. amuloo dund loo xamante ne moom mën nga wax internet Sénégal bi. bon comme la l'exemple ak jigéen ñi nga xamante ni sonal nañ la bon man xam naa jigéen ñi sonal nañ la. non mais loolu loolu c'est-à-dire que lépp luñ mën a wax. waaw moo ci mën a wax gannaaw ba tey. léegi dama lay bàyyi rek xam nga comme ñi ngi nekk si njeextal émission bi te xam naa après dañuy dem fi nga xamante ne moom mooy. restaurant Le Thiof restaurant Le Thiof. pour mannequin yi nga xamante ne ñoom ñoo la war a soxla. dañ lay bàyyi rek nga joxe adresse bi ak numéro téléphone bi balaa ngaa tàggoo. waaye sa adresse bi ca Yoff Apix Yoff Apix la. sama numéro téléphone nekk 77 035 00.

waaw kon euh, mbokk internet Sénégal TV comme ni mu ko waxee rek suivre nee leen tey di gis ay modèles yoo xamante ni modèles yu doy waar la dañuy ñëw rek après jug xam nga dem restaurant la coof wala leen tey ay modèles yoo xamante ni doy waar la lépp nag seen biir émission les réalités du métier lay xewee ci Sénégal TV li ñuy def rek mooy dañuy naan nañ ànd rek dem xool affaire yi <laughs> ah, ñëwaat non xam naa foofu du métier, les réalités du métier.